heure bu ngeen daan am espoir rek day dem ba ba àggee benn niveau bi carrière am day kii lan moo lan moo waral lool. caaro comme comme bon espoir. Issa Pouye. Mhm. tolloon na foofu. bi mu dugg ci calaf bi. ñëpp yaakaaroon na instant bi dana bokk ci ñiy téye làmb. Ahmed Deme. waaw amoon na départ boobu noonu. Mhm. am ngeen beneen xale muy rëg rek. Mhm. lan moo tax caare bi ñu demee ba am espoir rek yaakaar ci moom rek. lépp loo gis nag mbiru yàlla da ci da ci joué yàlla mbiru yàlla def ciy joué quoi. Mm-hmm. ndax man damay wax ni xëy na Issa peut-être yàlla moo tuddoon noonu carrière am mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. mais tey. yàlla yàlla bu la xañee lii rek am na lu mu la dencal. waaw te jaam dëgg dëgg dëgg bu fekkee jullit nga ah da ngay gëm dogalu yàlla. bu fekkee jullit nga dëgg te gëm yàlla ndogal bu yàlla indi ci yow rek da nga koy gëm man de noonu lay man noonu lay fonctionner ko moo tax man dara mënul fëkk sama kenn mënul fëkk mënumaa yóbbu ko problème bi mooy waa xam nga tamit aussi doone doone doone dañ jul sérieux doone sérieux nañ xam nga carrière da koy topp carrière da koy topp comme ni ngay tëjee say biton bubb ba mu egg bi ci kaw noonu la ñuy noonu la ñuy tëjee noonu la ñuy toppee carrière carrière du tey bëri naa tey rek am naa benn 10 millions rek naa firim réew déedéet waaw boo amee benn 10 millions war ngaa séntu beneen 10 millions boo séntoo beneen 10 millions war ngaa séntu beneen 15 xam nga man de noonu lay defee étape étape par étape at mu ne war ngaa xool yow li nga liggéey ci at mii fan la la yóbbu ak lan la la jariñ waaw fi non ñàkk and bi tamit loo gis tamit ànd da cee baax ànd moom écurie bi wax ma écurie bu yëngutuwul rek écurie yëpp yëngatu wax ma rek écurie bu yëngatuwul fii ci Sénégal gi ndax gis nga ko nee ma bii la rek écurie yëpp yëngatu xam nga te écurie li tax yëngatuwuñ mooy euh, champion yi nga xamante ni ñoom ñoo war a jàppale seen rek ñu ci bëri jàppale wuñ seen rek voilà André ngi ni xoola André xoola André kii c'est un grand champion boo nee turam boo tapé turam rek boo ne André rek waaw boo boo ko waxee rek seen amateur yi yàgg seetaan làmb yëpp xam nañ ko mais li li ko té li ko téye nii bëriwul ñàkk làmb ju dox la ah est-ce que association bi gëstu nañ ko ba xam ni xam nañ ci lu mu nekk moom déet déet est-ce que association bi gëstu nañ ko ba xam ci lu mu nekk moo lay wan ni moo lay wan ni association bi ñoom bu fekkee li ñuy woote ci seen biir te nee nañ am nañ nañ boole seen i guy ak seen i daxaar tëgg làmb ñoom di jàppale booy moom billaahi bis kurpañ dina juuxu kurpañ dina jub fuñ ko faagawul non bëgguma mu tas dama cee bokkoon xam xaalis bi ci bokkoon yëpp yow gis nga lii ma wax nii dama la wax lu leer xaalis bi ci ci nekkoon ay Lac de Guiers numéro un ay Boy Kayre ay Khadim Gadiaga ñoom ñëpp ay oto lañ yor ay yor ay passeport diplomate xool yor ay passeport diplomate laa la wax ñoom ñëpp yor ay passeport diplomate kon li ma wax nii dama ciy wax xam lu leer xam nga li ma la passeport diplomate moom yomb na boo ko bëggoon am di nga ko am waaw non bien sûr boo ko bëggoon di am di nga ko am man man bientôt dama koy am ndax man du question ci ñoom ni koy amee laa ko amee man sama société laa yor te ñaan naa yàlla di dem Europe di uti ay fournisseurs di jënd ay ay ay ay tonneeg yooyu di uti ay fournisseurs yooyu moom bu ma ko bëggee dama koy am xam nga man li may teg waaw waaw caaroy moom yow man yëngu nga fi kan ak kan xam nga wax question nag boo ko posé boo ko raay donc bu ko yërëm da sànni xeer kan non njoon musu musuñu seq ay sànni xeer njoon musuma seq ak ay moom sànni xeer wala nangam ak nangam sama rakk la sama rakk lay doon ba korog ñoom ñëpp moo wax la ko tey nag ba ci Ousmane Diop ñoom ñëpp ku ci nekk defal naa la loo xamante ni billaahi wallaahi tallaahi ba korog àdduna yu tukki yaa may xool di sëgg mais man du la xool di sëgg du ma ko wax ci télé nag usmaan jóob sama kër gii la daan ñëw sama kër la daan ñëw man maa daan yëkkati samay liket ak samay yëre di ko jox ñuy ànd dem mbapat Issa moom jëlaloo ma ko Xarim Ndiaye numéro 2 moom tudd na ma boppam ñaari at ñu dëkk ci koñ bi mënu ma la ne kii mooy Xarim Ndiaye numéro 2 kon kon kon xam nga kon am na fu ma jaar ñoom kon bu ma toogee bay wax dara rek pour la leen avancé loola ak lu leen kii mais du ma toog mu naan diw nii la wala diw nangam wala diw nangam ndax loolu su ma la ko waxee sans bopp laa ko wax ndax samay rakk lañ. xam nga te man amul lu may ragal la wax nag ci lu dul dëgg amul lu may ragal wax ci lu dul dëgg xanaa kay dama la koy wax ba pare ñu ko ñu ko jonte xeex ba pare ku na dem mais dëgg moom boo gisee nag loolu am ñun am nañ fi benn champion am nañ fi ay champion sax yoo xamante ni du tudd seen i tur ay champion champion yoo xamante ni ci nouvelle na génération bi ñoom ñoo xam dañu maase rek rek ay ay ay ay ay génération est-ce que xam nga ne ren jëloon naa benn initiative doon naa pare def sama jibile ba pare jëndoon naa demoon naa ba préparé pour jënd carte manager waaw pour oui jëndoon naa dañoo astafurlah carte promoteur pour di tëgg làmb waaw bien sûr pour jàppale sama rek waaw. Mhm. Mhm. Mhm. waaw xam nga c'est parce que su dee waxtaan ak ay magam ñi ko jiitu ci làmb bañ leen a nëbb soit mën naa am ñooñu am na faxastal bu ñu gisoon ci seen carrière mën nañ ko ko egge moo bañ faa jaar faxastalu moo tax waxtaan ak koo xamante daf la jiitu ciw yoon ah yàgg a jaar ciw yoon waxtaan ak moom dalay dalay yokk rek mais du la du du la wàññi am na mbër yoo xamante ni man léeg-léeg damay nekk aéroport mbër yoo xamante dañuy voyage yu fekk ma fa sa sàcc laaj ma sama laaj ma sama laaj ma ci sama xam-xam moo wax la am na mbër moo xamante ni dafa maa laaj sama xam-xam am na mbër moo xamante ni am na fu demoon voyage bi mu ñëwee ñu daan ko. mais bi mu ñëwaatee man ma def interview ne mbër moomu kat fa mu demoon voyage fa mu daan dem di am ndam bu mu ko bàyyee te jig na ko ba mu amaatee combat fa la dem te ba mu ñëwee daa ñëw daa am ndam waaw bien sûr xam nga kon jàpp nañ ko kooku jàpp nga ni ci say conseil mi ngi koy dégg. te booy bu booy bu yaru la nag wax dëgg yàlla booy bu am cër la booy bu joxe cër la wax dëgg yàlla waaw rek Reug maa ngi koy séntu comme fi may séntu fi ma doon séntu Tyson ay jamono ba ñu maa ngi koy séntu foofu quoi te incha allah rabi gëm naa ni mën na fa nekk ci kattanu yàlla quoi ndax làmb nag moom da ngay ñaan yàlla rek ndax làmb kenn mënul kenn mën ngaa dem ba yaakaar ne yaa mën ñëpp ki lay daan sax doo ko doo ko xam xam moo tax kon toujours làmb mbir la moo xamante ni tey jii ku ne la woon tey dina daan Eumeu Sène nekk ay bi ñu doo ko doo ko gëm. communication kan waaw man d'accord naa ci ndax xale la fugg lay waxe xale la te ñu ko ñu ko ñu ko ñu man jege jege jegewu ma ko jege naa ko lool mais jegewu ma ko waaw waaw jegewu ma ko bokkuma ci staff bi 100 pour cent mais bu ku mel noonu li muy génn di wax sax war du bëri ndax am na ñoo xam ne ni ci sa wax ci leen profité bu ñu amee combat ca la ñuy jaar sax pour am lu ñu bëgg ci yow xam nga ndax dañ lay juumloo nga wax erreur ñëw xam nga wax di nga wax dara niñ jaare ci bëgg la nga wax dara niñ jaare fa bañ la moo tax toujours communication dafa am solo xam nga xoola ko mel ni président wax dëgg yàlla démb bi mu waxee ñëpp dañ na gongo da lay woon ni am na ñu mu toogal ay confiance am ñu mu toogal ñu def ne la nii ak nii ak nii ak nii non noo xam nga làmb moo wax la tey nag dara boo ci doog a dugg gaynde ngay doon mais boo demee ba ci benn moment bi da ngay limité wu nag lu bëri loo def sax bu ñëwee li yaa ko doon sax da nga naan noonu li daaw ma ko def quoi xam nga loolu lépp am na man dama daan boot nit boot nit gàdduwaat nit moom géej gi xam nga mais boobu am li nga bëgg la mais li ma gën li may gën a basé wu rek mooy communication ñu xool ni muy ñu xool ni muy ni muy kiiyee ci communication am quoi ni muy waxee ci communication am mu change communication c'est très important ndax ñu bëri ci la ñuy mën a jaar pour mën la sikkal pour mën la waxal loo xamante ni ñun ñi nga xamante ni nag ay mag lañ te da euh, bëri nañ ba bàyyi bëri dara safuñu boo ñu doon classe yi ba déwén moo ndox mii lañ mais dafa yaru dafa am cër dafa joxe cër ku joxewul cër na kenn du la jox cër dafa joxe cër franchement parler te man lépp lu ma ci mën man sama xam lépp lu ma ci mën pare naa pour yebbi ko Thiaroye dafa war am roi des arènes bi bien sûr waxuma sax Reug Reug mais am na ñeneen ñu nga xamante ñu ngi ci suuf war ñu mën a doon ay roi du caaxaan fii lu leer laa lay wax ay xale yu ndaw yoo xamante ñu ngi mejj di ñëw xam nga buñ leen encadré ah ñu bañ a mel ni comme seen mag yi fi jaar nekk ñu benn xiiroo ŋaayoo kii jëmal jàpp xool seen yoonu baax ñoom ñëpp ñu bokk nday bokk baay ñu bëgg dañ koy am xam nga Thiaroye dafa nekk dëkk boo xamante ni dëkk bu neex a développé la fii dëkk bi dëkk bu neex a développé la caaro yi tey fii réyul réy goo xamante ni ah tey caaro yi mën naa ne 2 milliards boo ko fi dugaloon ah, pour affaire gox goxaat yeeg yooyu yëpp pour nga defar caaro yi day lu yomb lay doon xam nga mais tey suñu maam yi nga xamante ni jóge woon nañ fa bu yàgg boo leen boo leen dekkiloon tey ku ci nekk man mooy boo boo boo ko bàyyee mooy ñibbil boppam këram mais tey mën ngaa jóge ci dëkk gëj fa. ñëwaat ci dëkk doo xam yoon wa nga jaaroon bi ma duggee mbaaw man dama doon dama doon maa ngi félicité maire Ablaye Pouy même suñu maire bi sax Ndiaga ñaa maa ngi koy félicité ndax xam nga tamit aussi moom it mi ngi góor góorgóorlu mais tamit aussi war naa gën a yokk loxoom dafa war a gën a jël loxoom yokkaat ko xam nga yokkaat loxoom bi mooy mu gën a jàppale askanam te xam ni moom doomu Caaroy la fi la dëkk ay doomam fi la ñu juddoo fi la ñuy yaroo fi la ñu màggee moom fi la la yaroo fi la mu gën a jàppale askanam